asalaamaaleykum sama waa tim tim sama Adja Traiteur maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ni leen namoon naa leen sama bandi waa ñi j'espère que yéen a ngi ci jàmm on est présent sur beaucoup de réseaux sociaux suñu ay références mi ngi noonu WhatsApp TikTok YouTube Instagram et même sur Facebook di remercier suñu sponsor officiel suñu ay partenaire le groupe agro agroalimentaire Seyfar ci seen ay produits naturels bio set sell te sakkan yomb bëgg a dee seen euh, produit star vedette bi nekk temps yi mi bisaab dafa tàng neex na donc tey nag dañ leen di indil cu kanja yàpp mu nekk benn recette bu neex mais boo xamante ni c'est peu connu par les ma ne woon tey naa leen ko toggal pour togg ko ingrédients yaa ngi nii mu nekk recet bu raax comme ni ma ko waxee mais man dama koo bëgg sama yaay sincèrement ci moom laa ko xamee donc pour togg ko dinañ soxla kilo yàpp yàpp xar wala yàpp nag man tey yàpp nag laa am gis ngeen ni mu duufee diwlin 200 millilitres fii kànja bi la genn waa libre 250 grammes gombo euh, oignon vert ngeen def ci lu doy laaj lu tollook euh, benn doomu laaj 350 grammes bu soble def nañ ci aussi suñu jaxatu gis ngeen légumes yi nag selon ni ngeen ko bëggee la tomate aussi def nañ ko ci poivron moo nekk noonu am nañ ci aussi laurier pour mu parfumer ko da ci neex am nañ aussi carotte ñaari carotte lañ def sama waa kër dañu bëgg légume def naa aussi ñaari pomme de terre def naa manioc moo nekk ni ñam bi def naa aussi nawe Euh, kaani guana xaaj bi laa def comme d'habitude bëgguma kaani bu bëri gejj bi moo nekk noonu da koy neexal ak netatu bi ñuy dànk dañ koy jaay ci marché yi sel poivre comme d'habitude suñu seex yi kaani bu sew aussi tuuti ak suñu tomate concentré moo nekk nii légumes yi nag c'est au choix kum neex nga def batanse tey defuma batanse dinaa def pataas après dama ko fàtte présenté ci assiette bi donc laa dama teg sama diwlin njëkkee xorom wax bismillah ñu daal di ñëw rosi sama yàpp donc comme d'habitude man moom euh, sama diwlin du sens bu tàngee rek ma rosi donc laa rosi naa sama ma ñu rosi sama yàpp kilo yàpp laa def dama bëggoon tey yàpp bi doy vraiment ñu togg cuu kànja yàpp dama ko namm dama ko namm sincèrement damay dem ci yenn dëkk yi wax nit nit invité ma ma toggal la ma ne su ma ko ko waxee danaa man xaw ma plat boobu donc tey ma ni dafa nekkoon sama xel ça fait des mois je l'ai pas cuisiné ma ne xaaral ma togg ko donc laa maa ngi aussi ma yëngal tuuti pour xorom bi ak yàpp bi maase gis ngeen sama diwlin moom du sens ñoo ko gisandoo donc laa ma daal di raxas sama laurier def ko ci dama ko ci teel def pour mu parfumer wu carrément xaaral ma jam ko bu baax ma dugg ci biir. recette bu neex la ku ko xamul na ko essayer bu respecté état bii du sonn en attendant sama yàpp di doore foofu xaaral ma ñu dugg sama no ko soble oignon tomate bi laaj poivron gis ngeen laaj bee nekk noonu poivron bi oignon bi tomate bi soble bi moom laa defandoo yëpp ci gën bi damay ñëw ache ko ba mu mokk à côté gis ngeen suñu yàpp commencé na doore donc jarut bàyyi ba muy wow kong su dooree rek ñu commencé eggali suñu suñu reçu bi donc laa gis ngeen ne mi ngi doore damay bañ yàpp bi lappax rek moo tax ma ne xaaral ma dooreel ko ba ci kanam donc laa commencé na doore xaar ma ñëw tibb sama nokkos gis ngeen tibb benn kudd rek ci nokkos bi nokkos bi mokk na daal di ko ci def benn kudd si juste pour sama rosi bi rafet donc xaaral ma yëngal gaaw mu maase togg moom rosee ko yox ku la gën a yàkkamti rosi moo la gën a lawet la togg ki la mën a gën a jël temps ci rosi moo la gën a mën a réussir toggam mu saf parce que base bi foofu lay nekk muy ndox bi togg donc ñuy respecter loolu def naa ci sama tomate 70 grammes xam naa équivalence su kudd bu mag la bu mag bu fees dell daal di yëngal tomate bi jarul muy bëri sinon aussi dafay wex c'est juste pour jox ko une bonne couleur ak goût bu neex donc ñu yëngal ba mu maase gis ngeen commencé na dog suñu tomate mu ngi commencé dog man na tomate duma ko rosi ba mu xëm ba ñuul man guub boobu neexuma day mel ni lu xëm man su commencé dog rek damay ñuulug su ma amee lu ma bëgg gis ngeen nii mi ngi nii dog na bu defee ay mel ni lu grain yu ndaw nii rek nga xam ne sa tomate dog na ma daal di ñëw ñuulug ndox bu yem rek parce que soble bi dafa am ndox te kànja aussi dafa am ndox donc là peut-être j'ai mi à peu près deux litres d'eau j'ai mis à peu deux litres doo moom laa def nii ma daal di yëngal daal di yëngal lenqali naa sama kudd teg ci côté bi nànk xaar mu bax donc laa sama cin bi baax na gis ngeen ma daal di ñoo def légumes yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a dëgër seen temps de cuisson moo gën a yàgg donc ñaam bi laa dugal noonu après ma def nawe bi ak jaxatu bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëgër tuut ñoom laa njëkk a def ba ñu ko commencé ñor moo defal en même temps géej bi waaw dama bëgg géej bi teel cee saf teel cee seey ak netatu bi ku mu neex nga jël netetu doom bi raxas ba mu set dëbb wala netetu poudre bi c'est au choix tey man daal ma am envie toggee bi léegi nag gis ngeen suñu ay légumes commencé naa ñor suñu ñulub mi ngi génn xet baa ngi commencé xeeñ ñu eggali nag daal di ñëw jël suñu nokkas bi li ci des nokkas bi nag soble bi dafa doy nag waaw am na ñoo xamante ni sax dañu nokkas tuuti soble beneen soble bi ñu daggate ko mais man je préfère dëbb ko ba mu mokk waaw man moom damaa bëgg dëbb bu mokk man ay togg yu siiñ bëgguma ko <laughs> donc laa ñu def ci nokkas bi daal di yëngal ba mu maase gis ngeen ñeenti doomu soble la ñu nokkasoon mu toll ak cinquante grammes ku mu neex nga daggate ko ku mu neex nga nokkos ko nii ba mu mokk man dama koo nokkos ba mu mokk léegi ñu daal di yëngal ba mu maase yeneen légumes yi damay xaar ba ci kanam ñoom dañoo gaaw a ñor muy carotte pataas beeg pom de terre beeg yooyu su ma defee nii ba mu maase bàyyiwaat tuuti ba mu commencé waat ñor soble bi wàcc commencé ñor noon di xeeñ di gilli waaw bu commencé xeeñ di gilli ba nga sentir ne soble bi daal mi ngi xeex ak yàpp beeg légumes yi ci biir ñu daal di ñëw eggale gis ngeen laa mu ngi nii. mu daal di yàlla jël sama pataas teg ñoom ñooy ñoom ñooy dañoo gaaw a ñox moo tax ñoom laa mujjee def bi ma defee sama soble ba pare laa def sama pataas def sama pomme ak sama carotte vidéo bi nag tey xaw na gudd ça a fait dix mais c'est juste pour que explication yi leer parce que dafa nekk recette boo xamante ne en toute sincérité ñu bëri su ma leen ko waxee dañ naan xamuñu ko donc laa suñu cin mi ngi baax gis ngeen dama doon laal taat bi xool ndax euh, nekkul di ci jàpp mais deful dara légumes yi aussi ñu ngi ñor gis ngeen soble bi aussi mi ngi ñor donc laa mun na ñëw def suñu kànja moom tamit dëbb naa ko ba mu mokk c'est un choix man moom togg moom dama préférer di dëbb ba mu mokk ku mu neex nga daggate kànja mais man damay dëbb man lekk bu siiñ moom bugguma ko donc laa def nañ suñu kànja moom tamit ñoo yëngal ko nànk rek parce que foo faut ñu def attention bu ñu fàtte ne légumes yi mi ngi ci biir donc bu ñu defee nii ba mu tas après ñu da di koy baa baaji waaye je pense lii li ñuy wax baaji <laughs> baaji xaw ma daal yëngal ko nànk ba mu maase yépp daal di koy bàyyi nag mu daal di ñor nag suñu suñu cuu kànja yàpp ngi jël forme de dama koo bëgg dama koo bëgg sama xol dafa neex ñu ko xamul il faut l'essayer ñu ko xam nag moom xam ngeen li may wax donc waa ñëw daal di baaji je pense que baaji la de su fekkee du mot bi ngeen corriger ma ci commentaire yi parce que des fois moom j'apprends beaucoup ci commentaires yi def big up à tous les followers kontaan naa gis naa appréciation yi commentaires yi encouragement yi donc yëngal nañ ba mu maase ñi daal di ñoo def suñu ay sàppali def naa tuuti poobar tuuti bu yam rek laa def parce que kaani guana bi dafa xaw a saf def naa ci aussi sama sauce soja pour mu yokk goût bi tuuti rek lu tolloo kudd bu mag togg moom bu yam rek sinon su ëppee rek weex donc là ma daal di ñëw yëngal nag mu maase dina ma ko safalal dina ma ko dooreel waaw bu ñu sàppalee nii nag ba def yëpp nag moom presque là on a mis tous les ingrédients bàyyi mu ñor rek moo ci des bu ngeen gisee au début bi may rosi ku du ci noir weñ laa rosé mais après dama jël euh, bu ba bois parce que en général ñamu kànja boo koy togg danga koy toggee ak bant parce que dañ naan weñ da koy dogal maam yee ko wax comme dañ ko fee bàyyi ñu daal di koy pratiquer donc moo tax après comme ni ngeen ko gisee nii moom laa utiliser dafa neex a toggee donc laa ma maasale ba yëpp maase daal di ñëw nag changer fa indi ko ci fa bi gën a ndaw fa doux laa koy yóbbu pare fàtte ko fi teg sama ñankatang dem sangu ji waaj taal taaj añ bi waaw wax kenn bëgg naa di sangu ba set sañse balaa maa taaj añ donc laa gis ngeen même bii sax dama ko wàññi woon ba mu sës mais feu bi dafa fort donc indi naa ko ci feu bu ndaw bi gis ngeen daal di ko fiy tëj fàtte ko fi nànk dem sangu ji di leen wax ni bu leen fàtte abonné wu su ngeen seetaanee vidéo yi appuyé ci cloche bi comme ça lu ma dugal ngeen jot ko aussi di aimer vidéo yi sava va beaucoup m'aider gis ngeen laa suñu cin baar na de yii diw baa ngi commencé génn ça prend forme samay bakkan yaa ngi neex waa keñ darut toog moom il faut tout temps ngay vérifier sa cun cin wàññi sa gaz fàtt ko baax na waaye nag des fois nga jaar yëngal gis ngeen suñu suñu cin mi ngi nii di di baar c'est presque fini laa diw bi génn na ndox bi fer na gis ngeen ndox bi fer na carrément soos bi nekkul soos bu danga dang nekkul soos bu ndoxee dafa yem rek donc là suñu cu pare na tegoon nañ suñu ñànkatan comme quelque chose ñëpp mën nañ ko togg moo tax ma tëb étape boobu suñu cu kànja yàpp pare na tey nag dama yàkkal sama benn njëkke bu ma bëgg bu baax ci man mooy sukkay caam yaa moom sa cu kànja yàpp di remercier encore une fois suñu ay euh, partenaire le groupe agroalimentaire Seifa gis ngeen seen contact mi ngi nii Noflaay lañ ma indil maa ngi leen di waajal mbaxalu gerte bu saf sàpp waaw ñu def mbaxalu gerte dellu Saalum sama dëkk ndax Saalum Saalum laa di leen remercier di leen jox rendez-vous très prochainement pour yeneen recette jàngeen jëf